Bienvenue sur Salam salaam Vision laa leen di tegal nii jàmm ju ànd ak vision fu sori waaw mooy salaam Vision yéen ñi xamante ni yéen ngi koy seetaan dama lay diggal nga teel a dem gaaw abonné ci Salam Vision. asalaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum euh, dañuy delluwaat di gën a amaat mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax. donte ay diil jaaroon nañ fi jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy suñu kilifa gi toog ñaa ko sañ xaarim te nag dañuy ñëwaat nag ci beneen anam dañuy ñëwaat tamit ci beneen domaine dañuy ñëwaat tamit ci beneen loo xamante ni moo kàddu askan bi bu ñu askan bi ñëpp xam nañ jamono ji ni réew mi tëddee jamono ji ñëpp xam nañ li lëmbee réew mi ci wàllum état bi lu ci bari am na loo xam ne sax bëgguma ci xuus xuus bu bari balaa boobu noonu dañuy bàyyi kilifa gi mu nuyoo ba pare ñu doog a tàmbali liggéey bi sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay auzu billaahi samii alimi seytaan la jim bismillaahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabil ajmain wa bi isaani ila yawmi diin ñu ngi nuyu àdduna bépp rawatina diaspora bi di nuyu suñu kilifa diine yi sëriñ Mouhamadou Mountakha yàlla na ko yàlla may mu yàgg te wér ak mbooleem koo xam ne nekk na fi wootal diine. alhamdulilah yéen ko dégg ba sëñ xaadim nuyoo ba pare sëñ xaadim tey dafa am ci beneen domaine boo xam ne tey fa lañ bëgg ñëw tuuti muy ci kàddu askan bi kan mooy sëñ xaadim ci politique. donte ñu bari sax danaan politique mais ni ku ne ak na ngay politiquer politique bu si nekk ak anam yaa ngi koy defee suñu xaadim ci biir politique dañuy gis ni sëñ xaadim ci biir politique am da ciy def li nga xamante ni moo di day soñu ay nit ci kàddu dëgg day soñu nit ñi ci kàddu alxuraan day soñu nit ñi ci kàddu daayira yeeg daara yi sëñ xaadim dëgg dëgg dëgg dëgg sëñ xaadim suñu xaadim mooy kañ ci biir politique si waaw jërëjëf euh, am euh, sëriñ xaarim ci biir politique euh, mooy jëmm joo xam ne askan bi rek moo ko ñor askan bi rek si mébétu askan bi rek si lay xëy si lay gont ndaxte si wàllum politique niñ ko jàppee ak ni politique amee bokkul ndax boo xoolee tey politique Sénégal mun naa du politique politique bi nga xam ne moom lañ am Sénégal du politique li fi am mooy Euh, naxante fexe ba ku mën a nax sama morom rek toog si kawam loolu moom moo fi am mais politique dëgg mooy politique de développement mooy politique bi tax askan mën a gis seen bopp si réew mi bii tax euh, dëkk bi am jàmm stable loolu moom mooy politique euh, dëgg-dëgg ah Serigne Khadim nag moom mm, dundam gi yëpp politique la mais ban politique la mooy politique gu fexe ba nit ñi feebar bu ñu feebaree ñu mën a faju Euh, ci faju boo xam ne anam anam bu gën a bu gën a wér te duñu am benn jafe-jafe ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am na ci. allahu akbar yéen a ko dégg macha allah euh, sëñ Khadim élection yi ñu jot a génn euh, avant élection yi nga xamante ni jot nañu xaw ma assemblée nationale xaw ma yooyu balaa ma cee ñëw sax dafa am ci leneen lu ma bëgg a ñëw tuuti ci élection locale yi dafa am ñu doon jëflanteel nga duma leen dumay leer naññ ba amul luñ ci lamlaame ak luñ ci sëkk sàkkal sëñ Xaadim fan la jaar ak lan la jëflanteeg ak waa tuuba ba ñi nga xamante ñoom la doon jëflanteel mu duma leen tànn. waaw xam nga euh, Touba euh, dëkku dëgg la dëkk bi ki ko sas moom si dëgg ak njubla woote ak kennal yàlla ak fexe ba àdduna bépp lëkkaloo boole seen xol yi nekk benn te ñu nit si loolu lañu teg suñu tànk. ndaxte euh, da nga gis ne nit ñi dañu yàgg ñëw Touba di nax waa Touba di leen utiliser suñu waxee ñu ne waa Touba yeewuñu ah, ñii naan ay Touba lu nekk ñu koy wax te ñun ñu bokk ci biir nekk ay taalibe Serigne Touba ba pare bokk ci deret bi ndax maam Xaalima Jaxate Kala mooy sama maam maam Seynabou Mbaye euh, Seynabou Ndiaye moom mooy sama mooy mooy sama maam mu nekk mbay mbaakoon mbaakon di njara njara kon bu ñu bokkee si biir askan bi duñ bëgg lépp luy luy xajamal askan bi ñun nañ teg suñu tànk ba lool du am Sénégal deuxième ville Sénégal mooy Touba kon Touba bokk na si dëkk yi bokk na si ñi gën a fonk ñi war a gën a jox cër donte Sénégal yëpp war nañ leen jox cër mais Touba dañ leen war a gën a jox seen cër ndax seen liggéey si si àdduna bi euh, ñun nag bi ñu ñëwee dañoo wàcc si suuf dugg si marché yi. dugg si gox goxaan ni dugg si groupement yeeg ñëpp ñu dem ba remarqué nii ndeke ñun ñi ñu jiite ñëpp dañoo lajj si côté yëpp. léegi ñu laaj askan bi lan mooy seen jafe-jafe ndeke askan bi ñoom ñu si bëri li tax mortalité yi di bëri parce que ku ci feebar pour nga faju sa problème lay doon ndax tey bu fekkee ni bërëb liggéeykaay yi amul doyul léegi nag nit ki boobaa pour mu am lu muy dundee du doy. waaye léegi ñaar bu ko nit jàppee ñaar yeeg feebar la ñàkk liggéey ah ak ñàkk dund feebar la léegi nag bu fekkee nit ki tamit dafa am tawatum jëmm bu demee opitaal ñu ne ko da ngay dagg ticket analyse fii jaar fii fu ne ñu koy def te ñun dem nañ ba gis ne ressource Sénégal liy dugg Sénégal yëpp war na mën a faj doomu Sénégal ba na tukki te kenn kenn du laal poos poosam léegi nag ñun nag en tant que leader di président ADS alliance pour le développement du Sénégal ñu jël sunu responsabilité di jël nit ñi di leen faj ci gratuite di leen jàppale di xool ban méthode la ñuy def ba ñoom ñu mën a liggéey ñuy créer emploi di defal nit ñi ay formation ñuy am si luñ jàpp mais loolu nag rôle état la rôle ñi nga xam ne yàlla dénk neen ay milliards ñu yor ko toog si seen rôle mais defañu ko buñ demee ba nit ñi soxla askan bi rek dañuy wàccaat si terrain bi ndax askan bi dig leen digg yoo xam ne daara amu ci bu ñu faloo nag su ko defee toog fële jël def ko arme léegi di di xeex askan bi lii moom mooy jafe-jafe bi ñun nag bi ñu xamee loolu nag dañoo xam ne askan bi sonn nañ ñu fekk si leen si biir terrain bi xam lan mooy seen jafe-jafe ànd seeg ñoom lii moo tax askan bi jox ñu bopp lii moo tax ñu gañe nit ñi si li nga xam ne moom moom moom lañ moom lañ nekk tey ji euh, ci li nga xamante ni askan bi tey ñoom ñoo leen wóolu ba tax ñu yëkkati seen jëmm jox leen ko yëkkati seen nopp jox leen ko yëkkati seen i bëgg jox leen ko fi ngeen jaar ba xuus ba gañe ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi doon ñëw tey ji di nax askan bi bi ngeen demee sëñ Xaadim moom bi mu demee ba am yëg-yëg ni saa yi jot na ngir Touba am beneen méthode boo xamante ni mooy maanaam li fi politiciens yi di dugal di leen nax sëñ Xaadim moom dafa ñëw taxaw ak waa ADS ngir fas yéene dindi loolu wala maanaam moom dafa taxaw ngir population Sénégal gi yëpp changé wala nu fa demee noonu. waaw xam nga Sénégal du Touba kese ñun am nañ base fépp foo xam ne Sénégalais ñu ngi fa bépp région bépp département bépp commune am na si dëkk yoo xam tey bi boo fa àggee tey ku la waxoon ni dëkk yi am na da nga naan déedéet tey li si mel ne Touba Fall jigéen ñi ñoo cotiser seen bopp. jënd seen bopp ambulance am na dëkk yoo xam ne fu mu toll ñu ngi si biir Sénégal courant amuñu ko ay nit ñooy jóge fële si àll bi ñëw di leen nax di leen tegal ay projet yëpp ñun ñëpp dem nañ seeti ko région Sénégal bépp ADS teg na si tànk en tant que leader ñun région Sénégal yëpp ñun teg nañ si tànk même diaspora bi xoola tey sunu doom yi euh, nekk si bitim réew tey ku jënd pistolet sa bëgg ko essayer si Sénégal yi nga koy essayer teel la mun a këlëb te amul suñ benn njiit boo xam ne mus na taxaw àddu si ni sunu doom yi nekk bitim réew muy Europe muy Asie muy Afrique mu jëlee leen benn intervention te pourtant ay Sénégal lañ tey fii la Joola bi mu suuxee ñaata Sénégal ñoo si dee mais France dañoo wax ni seen benn doomu réew dafa dee si dafa dee si accident bi kon nañ leen jox sunu premier ministre jamono yooyu ma Maajo Booy moo ne premier ministre nañ leen ko jox ñu tëj leen mais tey ñun sunu ñaata doom. ñooy dee France ñooy dee Italie ñooy dee si yeneen dëkk yi mës nga dégg sunu benn njiit mu def intervention si tey sunu doomu réew bu mu nekk Europe ba beneen réew pour mu am kayit jafe-jafe lay doon te ñun ñu war a mën a jël sunu responsabilité ba képp ku noggatu sunu benn doomu réew si bépp ñu nit ñu noggatu ay doomu réew parce que mit du ñu nangu benn bépp benn sénégalais fu mu génn sénégalais ginaar moo ko fay ëpp moo ko fay ëpp valeur. te yow boo jógee seen réew ñëw suñu réew loo fi bëgg da nga fi am loolu ñun bokk na ci politique bu ADS njëkk a taxaw pour pour loolu mu deñ beneen mbiit nañ fexe ba baykat yi xoola tey baykat yi tey li tax ñun suñu baykat mënuñu ko gis seen réew parce que importé yi fii dugg moo tax suñu baykat mu mënuñu ko gis xoola tey soble bi naka la réew mi mun a bayee ay angaaru soble ñu boole ko ko ibbi frontières yi ay yeneen doomu réewu jàmbur ñëw di si dugal jaay ba mu jeexal ñun suñu soble yi ñu stocké woon lépp jeex ba nëpp ba yàqu ba ñu suul ko ñuy doog génn ñu ne léegi Sénégal ay saaku cinquante mille parce que dañoo sonn léegi nag kon nañ jàppale baykat yi xoole chauffeur si transport bi tey jàppale wuñ leen jàppale wuñ benn benn transporteur boo xam ne nekk na nekk nekk na fii Sénégal euh, te yi enseignant yaa ngi nii sonn nañ parce que tey mënoo di jàngal nit di am problème courant am problème loyer am problème problème naan. ma sax foofu laa doon bëgg jëm si tuuti boo jógee dakaar jëm si Touba li ñuy romb ci àll bi mu nekk ay garab sant yi ñuy jël di ko tabax nan dañ ciy dëkkal ñoo xamante ni ay étranger lañ te jëriñoo bari réew mi tey jii nga yaakaar ni loolu maanaam. ci téléwu Macky Sall la wala ci téléwu ñi nga xamante ni ñoo ko wër wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ak ñoom di liggéey noonu. waaw xam nga tey man damay jël lépp ma ne Macky Sall la man loolu lay wax parce que li tax mooy Macky Sall li mu war a def yëpp def na ko mais tey ñi mu àndal moom na leen contrôler parce que mënoo fal nit ba pare nga ne yow ki nga fal doo ko contrôler kon kooku bu defee faay yow la ñuy wax parce que ñun fal ñu kooku yow lañ fal. kon ministres yi moom moo leen fal ñun moom ñun ñun askan bee ko fal. kon nag lu lu laaj yi moom lañ koy laaj duñ ko laaj duñ ko laaj duñ ko laaj ministre keroog li amoon assemblée rafetlu nga ko wala da nga ko ñaaw assemblée moom dañ ko waroon tas parce que ñu amul benn yar ñoo fa nekk man gis naa fi ay xale yu jigéen fan yi sax ñu leen di TikTok ak yooyu ay xale yu jigéen yoo xamante ni dañuy sol ay yére yoo xam ne yiiwul xam nga askan bi rafetlu wuñ ko mais dañuy nekk ci biir assemblée bi di défilé mel ni ñoom dañoo nekk seen i biir sol yi coquette maanaam léegi est-ce que jotul léegi ñu tasaat assemblée léegi xolaat assemblée ñi nga xamante ni ñoom ñooy bopp yi ñu jël leen teg leen fa. assemblée nationale jullit moo fa daan tegu ba àdduna di baax jullit moom lañ daan fal assemblée mais naafiq kenn du ko fal assemblée parce que li tax ma ne naafiq kenn du ko fal assemblée munoo taxaw fii di kaas askan bi dañoo sonn ah, góor jigéen ñi ngi fi lépp a ngi fi ba nit ñi jël la fal la nga taxaw foofu di xeex ak di xëccoo xëccoo post kon dañuy gis ne ñoom seen intérêt bakkan moo moo taxoon ñuy xeex mais du intérêt population bi dégg mos nga dégg benn député mu taxaw ne dund gi dafa seer. mosuma ko dégg. hôpital yi di faju ni parce que lan ñoom am nañ passeport diplomate jox nañ leen ay carburant 1000 litres jox leen chauffeur jox leen lépp mais askan bi taxoon bi leen fal nag ñoom askan bi lan lan lañ am kon da gis ni tey. ensemble ku gëmul yàlla war fa toog parce que dañ loi yi nga xam ne mu ngi daganal yàq askan fa lañ koy jaaree mais ñoom ñi koy voté ñoom ñooy wàccaat di mars est-ce que tey bu ñu jëloon ay jullit ñi nga xam ne ñu ñu méngoog suñu culture si nitu diine yi ñu fexe bañ toog ensemble dund gi doot ñu amati jafe-jafe doot ñu am jafe-jafe faju dem béeg dikk bi baykat yi doot ñu sonnati ñii ñuy tooñ di leen tuumaal ah di def ay certificat médical di leen tëj ci kaso bi ñaata nit lañ tëj ci kaso bi ñoo xam dañ leen tuumaal tey prison boo fa nee ñu si bëri tey dañ leen tuumaal tëj leen benn dañ leen jaay doole soit nit moo am baranloo euh, tuumaal la viol bàyyi yeneen ak yeneen te yooyu ñëpp ñu ngi ñu ngi dund ay su ay souffrir ci biir kaso prison yi. fan yii gis naa ci benn cas boo xamante ni mooy ki nga xamante ni fu la Fuuta la dëkk man nag bëgguma tudd tur ndax man du ma tooñ mais nag nit ku ne boo sa émission am nga droit wax ki nga xamante ni Fuuta la dëkk. yëkkatoon ay kàddu daan ne Ousmane Sonko bis bu duggee Fouta dina xam ñu gis ni ay diil doomam dafa jëloon saako boo xamante ne ay million la ci def ba pare jël ko di ko fawee loolu xaalisu askan bi la nga foog wala xaalis la bu bàyyi bi liggéey jël ta ko wala du mu fa demee noonu. waaw xam nga man du ma bëgg di tudd tur euh, Ousmane Sonko sénégalais la am na droit dem fépp fi Sénégal kenn amul droit interdit kenn parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk ñëpp fi lañ juddoo fi lañ amee lépp. kon kenn amul droit interdit kenn fenn loolu yabaate la. lan moo tax Macky Sall képp koo xamante ne bokk nga ci état nga nekk ak moom lu la neex ngay def te loo mënti def kenn du la audit te bu keneen jógee fee samp benn affaire am ñu dem ba ci bi xam ne kat kii mën na leen a daane ñu fexe koo gàllankoor créer ko problème tuumaal ko teg ko kaso léegi est-ce que jotul léegi ñun askan bi léegi ñu xoolaat suñu bopp ci li nga xamante moo di politique askan bi ñoo war a fal seen bopp bañ xam-fal seen bopp mooy nit dafiy nekk fii jàng am bac ñu may la bourse nga dem France jàngi uti kayit culture waa France ngay jël ba culture Italie ba culture anglais yi boo ñëwee moom nga ñuy jiitee mais lu tax ñun sunu réew mi nit diine ñoo ko sanc ñaata nit ñi fi ëpp alal senegal fii jànguñu français te pourtant ñoom ñooy dimbali état ñooy ñooy am entreprise yu ëpp doole fii ñu ko ñu ko ay nitu daara lañ mais lu tax Sénégal ñoom wa ilaa Sénégal benn jullit bi ñuy wax di ñuy woote ndax dëgg la war du dëgg mais lu tax Sénégal tey bu nitu jullit nitu diine taxawee ne damaa soxla ñu bedd la bu nitu tubaab ñëwee taxaw ñu fal dafa am loo xamante ni dama ko gëstoon ci ay doomu adama ba mu toog sama biir nopp dañ ne woon seen xaadim te bu yàlla dogaloon tey ji ba nga xam ne jël na li nga xamante ni mooy réewu Sénégal tey ji député yi. seen salaire yi nga xamante ni dañ koy jël ak seen carburant yi nga dañ koy jël di ko yàq loolu noonu waroon na doon loo xamante ni lu ñuy wàññi la tabaxaat ci ay daara jàng ci nit ñi ay xam-xam loolu sëñ Xaadim moo ko waxoon wala sëñ Xaadim wax waaw maa wax loolu mais loolu du si xam nga tey Sénégal dafa am ñoo xam ne amuñu programme ñu ngi fi seen ñuy wax kenn am fi programme amuñu xam-xamu jiite amuñu programme li ñu xaar mooy sëñ Xaadim wax na benn affaire ñu jël ko bind ko di ko doxee mais am na si loo xam ne su ma fa àggee Sénégal dina dinañ xam ne Sénégal mi ngi doog am président bis bu ñu jëlee réew mi ADS jël réew mi wallahi azim dinañ xam ne Sénégal mi ngi doog am président benn nit dina faju ci réew mi te du fay dara nitu diine yi dinañ am seen jàmm am seen liberté ñu weg leen ndax ñaata nit ñi ni ci internet di saaga nitu diine yi dinañ ko saafara beneen bi tamit daara yi dinañ leen subventionné comme ni ñu subventionné école yi ndax daara moo sañ ci dëkk bi beneen bi tamit assemblée bi du pouvoir bi ñu leen may dinañ ko wàññi parce que homme de tenue yi ñoo tax euh, euh, ñu ne assemblée am jàmm kon ñi tax yow nga am jàmm il foog ñu may leen doole ju ñu tax du doole nag xeex mais doole ñoom dundal seen njaboot ba am lu leen doy ba tax ñoom duñ corrompre askan bi duñ corruption si askan bi prisonniers yi di tëdd ko nelaw ko jug dinañ utal solution boo xam ne ñoom dinañ mën a liggéeyal seen askan kon ADS bu toogee dinañ fexe ba tey buñ teewoon réew mi pile de six ans Sénégal mooy jaay dëkk Afrique dund mais Sénégal benn importe dootu dugg Sénégal di fi dugg. dafa am dafa am dafa am ñu commentaire nee nañ sëñ Xaadim xanaa moom dafa génn réew mi dem gësuwaat ci beneen doxalin ñëwaat ci réew mi parce que li muy wax ni xam-xam la boo xamante ni jot na ngir askan bi gëstu ko sëñ Xaadim ñi ko encadré ñi ko encadré. ay borom bopp lañu wara lii seen xaadim moom moo xam ne carrément société bi léegi dafa jot ngir mu changé ngir réew mi war a mën a jëm kanam wara seen xaadim dafa am leneen ak leneen loo xamante ni da koy liggéeyandoo ak ñeneen ci suuf loo xam ne waxagu ko askan sëriñ xaadim benn doole la muy yàlla nekk taalibi sëriñ Touba kon loolu mooy doole sëriñ xaadim beneen tamit ànduma ak cuune ànduma ak como képp koo gis si wetu Serigne dem rek kooku rek boo ko boo ko yabaloon mu defar réew mi gis nga defar réew jub ak dëggu ak doylu mooy defar réew gis nga nit bu jubee doylu dëggu réew loo ko jox dina ko mën a defar na mën na gouverner àdduna mais ñun problème bi mooy problème ku jub ak problème ku doylu ak problème ku ku dëggu ñàkk dëggu kon ñii problème yi la ñu am xoolal tey depuis 1960 ba léegi 62 ans. chaque at ñi ngi dugal ci inondation mbënd bi mais tey la réew mi gën a yàqu ana alal googu tey cent soixante huit sociétés yoo xam ne dañ leen éliminer Sénégal chaque at minimum dinañ dugal huit mille milliards yoo xam ne xañ nañ ko doomu sénégalais loo tax jeunes yi di taxawaalu liggéey ñu léegi tey xool wàllum santé bi médecin bi def erreur ci santé nga jàpp ko tëj ci kaso bi mais médecin bi ñaata junni nit la faj ñoo xam soobee na seen bakkan parce que lan erreur bi parce que li tax erreur bi est-ce que duñ gëstu lu tax médecin bi erreur ndax problème location la ndax problème courant la ndax doomam dafa am jafe-jafe ñu tëj ko léegi nag ban parce que wàllu wér-gu-yaram ki kay kiñ ko dénk dafa dañ ko war a mettre à bonne condition mais bu fekkee da ngay jël ni jàngal ko sànni ko naka demal faj yi muy wër di ñaanal cent franc ko xel mi du mën a tranquille ba mun a faj parce que benn dañ ñoo defar ay hôpital ñu ci fajoo tey amul kenn suñ nit état bi ku defar hôpital ba pare fajoo fi déedéet beneen tamit amul suñ benn kilifa diina bu feebar génn bitim réew euh, te booy ñëwaat dugaatuñ la si kees amul suñu nit diina bu feebar fii may wax man te li ma wax ñeme naa ko xam naa li ma xam naa bu baax bépp kilifa diina bu feebar ñu génne la France nga dem booy ñëwaat si kees lañ lay dugal seetal seet xoolal parce que li nga wax ne dañ ko gëstu gëstuwaat ko parce que <laughs> waaw am na loo xam ne duñ ci sori daal parce que waaw kaddu dëgg bi la quoi askan bi kaddu askan bi la kaddu askan bi bu ñu nee kaddu askan bi mooy baatu dëgg foog muy génn ñu di ko wax mais sëñ Xaadim dafa am ñoo xamante ni ci côté état bi lañ nekk dañoo recevoir loon waa DAES dañoo bëggoon a tas groupe bi wala dañu ne bëggoon jënd wala nu fa demee noonu wala dañoo xam ne nag ñii bis bu ñu exploité woo du leen arrangé ñu bëggoon a xool parti bi tel leen a waaxu tel leen a jënd ci xaalis loolu ngeen dem ba ci biir génnaat ci taxaw ne carrément ñun xaalis taxu ñoo jug askan bee ñu tax a jug dëgg boobu nga xamante ni nga nekk ci ak sa militant yi nga xamante ni yéen a ci ànd dëgg boobu nga xamante ni tamit da ko gëstu tamit ba xam ne nekk na ci yow tax ñoom ñu ànd ak yow tey ji nit jël xaalis bari tagal la ko nga jël xaalis boobu sànni ko nële ne carrément man xaalis bi taxu maa jug askan bee ma tax a jug bi nga demee ba toogaat loolu est-ce que ñi nga àndal tamit taxaw nañ la carrément li nga nekk looluy dëgg wala li nga nekk waaw mooy li ma la xam nga nit da ngay xalaat ni da nga am ay njaboot da ngay xalaat ni tamit jullit nga ñaar xalaat tamit ne jullit buy pratique nga nekk jullitu naafiq si nga lii boo ko defee bis boo jaayee ay ay ay nit ngir alal àdduna dafay jàpp ni nit ki ngay lekk si nga rey rey nit ñu bëri rey nañ ay junni nit te xamuñu rey pour ñoom ñun rey mooy jël paaka baa dóor bal nit ki jël yaakaaram bépp dundam gépp mu sacrifié ko ndax yow nga xëy un jour war ko ànd ak nit wàcc ko foofu kooku da nga ko rey da nga ko toroxal kon rey nit ak wor nit loolu mooy li ëpp doole ñun duñu wor parce que bu dul daara ñun am nañ yàlla am nañ yonent bi sallallahu alayhi am nañ Serigne Touba kon ñun du ñu wor beneen bi tamit mooy même bu dul dara ay nitu diina ñoo ñu wër laayeen mi ngi fi tijaan mi ngi fi canaba mi ngi fi njaayeen ñi ngi fi même même laayeen même même même chrétiens yi bokkuñu ak ñoom diine mais amante nañ jàmm ci réew mi ci réew mi lañ bokk kon ñii ñëpp ñu la yaakaaree kon bul def dara ngir ngi parce que ki lay yëkkati ay alal di la ko fal di la ko jox moom benn day wàcc baa ma dee kon ñun askan bi moo ñu yitteel ADS ay nit ñu dëggoo fi nekk ay nit ñu juboo fi nekk ay nit ñu maandu ñoo fi nekk ku si mel na tey le secrétaire général Souleymane Fall. nekk boroom xam-xam jaar ci part jaar fu ne sunu yaay ummaa jigéen ak euh, ci Thierno Diakhaté ak képp koo xam ne nekk na fi bari na ay kàngam yoo xam ne tey ñu ngi ci ADS ak fépp foo xam ne Sénégal nekk na fi muy gox mu moo doon rek ADS am na fa ay ay ay ay ay ay ay ay responsable am na fa ay militant te aussi dama naa ni sa gagné na majorité foofu kon ADS alal jënd ko su jënd ko dara xam lan moo koy jënd askan bi kon ADS dafay nekk pour askan bi ADS it moom seul moo nekk gum partenaire boppam loolu tamit nañ ko leeral ndax tey dañuy seen nit di dem mbooloo mi bari dëkk boo dem ñu tourné ADS ADS ñu yaakaar ni ADS amul benn partenaire boo xam nekk na si ADS su ma neexee ma ne partenaire bi man mii la man maay partenaire ADS maay leader bi maay partenaire bi lépp lu dugg ADS man la te ADS ni mu amee doole ADS ni ko ñëpp di dégg ak ADS ñëpp ni ñu ko ragalee jëm ji moo toog. waaw ADS mi ngi nii ADS tey du jëmm ji mais ADS senegal la. macha ADS mooy ñi ñi bëgg seen réew jàkk ñoo ñooy ADS. ñi nga xam ne pare nañ pour seen réew dem jëm kanam ñoo ñooy ADS nag amul par parloo ndax alalu askan bi la kon ku ñëw te sa yitte nekk askan bi gis seen bopp si réew mi rek. ARS boo ñëwee ibbi na lay buntu waaye képp koo xam da nga ñëw ngir sa intérêt bopp baa ñëw pour war ni ARS am alal ARS dina la sànni fële ndax ay alal yooyu tax ko jug defar askan bi defar réew mi loolu moo tax a jug ADS. macha allah ëllëgu ADS ëllëgu ADS ci politique ëllëgu ADS ci Sénégal ëllëgu ADS si biir Touba Mbacké. ëllëgu ADS mooy jël réew mi euh, euh, defar ko ba képp koo xam ne Sénégal suñu doom yi nekkoon bitim réew. mu jaral leen ñu bàyyi seen dëkk jàmbur yi ñëw ndax alalu jàmbur dëkk jàmbur réewu jàmbur ku si wéeru bis dina ñëw nga tumuranke kon kon ëllëgu ADS mooy tey sunu doom réew yu bëri dem nañ uti ji mais pour ñu ñëw investir si dëkk bi problème la parce que tëj nañ seen i bunt ñun nag dinañ tëj bunt yëpp parce que képp koo xam sénégalais nga parce que mënuñu tubaab bi ñëw root suñuy ressources yóbbu ko kon suñu doom réew bu ñu uti jee nañ tëj bunt yëpp benn tey sénégalais mooy ut oto ba ut ut conteneur war ko dugal si réew mi ñu tegal la taxe yoo xam ne yow yow boo ñëwee sa doo gis sa bopp yooyu yëpp dinañ ko wàññi dinañ ko dindi képp koo xam ne dina jëlee Sénégal pour yóbbu feneen nag dinañ ko seeral ba mu seer waaye ku jëlee feneen pour indi Sénégal dinañ tijji bunt yëpp loolu ADS pare na pour def loolu pour jàppale nappkat yi xoolal suñu mool yi li ñuy daj xoolal géej nu mu méttee mais lu tax ñun suñuy nappkat yi mënuñoo gis seen bopp ci réew mi lu tax loolu. géej gi nga foog ne Macky Sall jaay ko. géej gi lu jiitu Macky Sall jaay nañ ko. Sénégal mës sa am jën. loolu suñu tële la wala suñu ñàkk am xam la. ñàkk doylu ak ña ak ak gëm sa bopp. xam nga euh, arab dafa wax ne xubbul watani minal imaanu man laay xibbu watanu laay koonu sarifan sopp sa réew bokk na si ngëm yàlla ku sopp réewam nag du nekk ku tedd. tey sunu ñun sunu réew depuis jamonoy Senghor lañ lañ ñu tayra ba léegi jamonoy Senghor be parce que li tax mooy constitution bi fi nekk du consti amul lenn lu lu lu méngoog suñu culture bi fi nekk kon déjà constitution si la ñuy jaayee réew kon suñu constitution depuis Senghor ba léegi moo fi nekk tey euh, sunu ñi école yi ñu sunu école yi ñuy yor di jàngale sunu ban nitu diine nga fi gis mu bind fi bind boo xam ne tey ñu koy jàngale si biir école yi. gisaguma ko fi de. léegi lan la ñu ay Molière ay ay Lamartine ah ay ay ay ay Marco ñooñu nga xam ne euh, tekkuñ fi dara dem tey ñooñu lañuy jël di leen ñuy jàng moo tax tey sénégalais bu jàng tey boo amee bag yi dañ lay wax ni sa bag bi amoon la njariñ il faut nga dem jàng dëkk tubaab bi tubaab bi tey dëkkam tey mu ngi fay defee lu nekk lu tax yow boo jàngee ba fi sa jàng yam dañ naan leew tekk koo fi dara dem dëkk tubaab bi. loolu est-ce que nekkul ñàkk suñu bopp. parce que dañoo amul njiit yu njiit njiit yu mat njiit. bu fekkee ñun benn suñu constitution dugal nañ suñu culture parce que dëkk bu nekk culture am moo koy développé mais culture jàmbur du développé benn réew dëkk bu nekk culture dëkk boobu mooy développé dëkk boobu mais culture beneen réew boo ko indee sa réew sa réew du développe si njaam lay nekk ba keroog muy dee. te ma gis ni étranger bari dañ fi ñëw sa carte bi nga génne moom la ñuy génne sa passeport bi nga génne moom la ñuy génne te ñoom boo jógoon fii tey nga dem Guinée Bissau bi wala nga dem Conakry bii nii kayit bu suukar sax laa lax pour fas yéene am sax benn kayit bu ndaw a ndaw a ndaw pour ab pour lijjanti doo ko fa mën am parce boo xam n ne fi te fii nii léegi da ngay am sa benn table teg boo ñëwee da nga am jàmm mais nga xam ne mooy doomu taxes yi commencé métti ci moom ba day mujjee découragé tey nga yaakaar ne tey ëllëg jotul léegi ñu xoolaat léegi suñu réew mi carrément xam nga xoolaat suñu politique bu baax baax ci ni muy doxalee est ce que léegi waa ADS rek pare wuñu leen ngir ñëw ngir fas yéene dégager loolu lépp mu dem benn yoon ñu amaat beneen Sénégal amaat beneen pays. loolu ADS bi mu ko tàmbalee yàgg na ndax boo xoolee ñi bëri jàppoon nañ leen jaam ci àll yi ADS tinki na buum yooyu ñu ngi koy def ñu ngi def ay gëstu ñu ngi dimbali baykat yi ñu ngi waxtaan ak euh, nappkat yi euh, euh, comme li ma wax sànq rek transporteurs yi gisuñu seen bopp ci réew mi ndax tey oto yi ñu am tey dañ leen koy xaj benn tey usine sax bu nekk ci réew mi société baa ñuy tabax dara ñu dox ko doomu réew mi kenn mu man de mosuma ko gis lépp lu ñuy tabax ci réew mi étranger lañ koy jox te pourtant tey Maroc bii tey Maroc tey même bu ñu la jiyee jaay affaire dañ lay wax ni seen doomu réew ñoo koy liggéey biir Maroc doo fa fekk beneen société bu dul société Maroc marocain mais loolu tax ñu développé mais lu tax tey Sénégal tey bu ñu dee tabax pont te pourtant ñi fi jàng ay ingénieur jàng ba am diplôme ñu ne ingénieur bu mag la ba pare yow ingénieur boobee mënoo liggéey dara sa dëkk kon diplôme ban njëriñ am. mais tali ñu gars yi di xoos chinois yi dañuy ñëw taxaw sol seen costume taxaw. sénégalais yi taxul liggéey bi ci ba sonn ba pare te duñ ci jariñu jariñu bi tax ñu ñu war mën a gisal waaw parce que dañuy wax ni chinois yi sénégalais yi amuñu xel wax ju bari lañ def ak doole lañ am léegi yéen fexe leen ba bu ñu xam seen technique bu ngeen dee liggéey dee leen liggéey guddi ñoom dee leen naan yëkkati leen tegal leen ma fii tey boo ki ëpp xam-xam ci Sénégal bu dee chinois yi moom lañ yëkkatiloo di ko tegloo loolu politique la boo xam ne suñu njiit yi ñoom ñoo ko def mais ADS nag bu jëlee réew mi képp koo xam ne euh, bépp marché boo xam am na si réew mi fii ku dul sénégalais du ko liggéey gis nga dañuy nax tubaab bi dañuy nax di ñuy wax nii ay kii littéraire la kii scientifique la yooyu amul gis nga littéraire scientifique amul parce que lan ñii bindkat lañ ñii waxkat lañ léegi nañu wax ni littéraire bi yow yaa gën scientifique yi dem scientifique na ko yaa gën littéraire bi du ko dee littéraire ak scientifique fépp fu ñu dajee dañuy dañuy xuloo di xeex ñoom ñi jaar suuf di liggéey gis nga tey fii ku fi gën a jàng suñu université yi tey université àdduna bépp boo fa dem étudiants yi ñooy liggéey ñooy defar dëkk yi mais ñun suñ benn étudiant mun la defaral puso. loolu jaaxal na ma. parce que parce que problème lañ ñu jox baaxul matul maanaam tey dañ ñoo dañ ñoo jaay oto à péage bi 32 ans yaa ngi koy da koy fay. mais waa ADS ñoom naka lañ def bëgg su loolu lépp ba xam ko ba pare teg ko seen loxo ba pare di ko doxal. waaw parce que ADS ay Sénégalais lañ gëm seen réew xam li seen réew ba pare di dund si réew mi mosu ñoo dem fenn. waa ADS nga ne mosu ñoo dem fenn. dem fenn. ba pare am ci xam-xam bu toll nii. gis nga xam-xam aajul njàng bu bari njàng bu nit fu sa xam-xam yam fa la fa la sa ndox tàmbalee. delluwaat ci nga ne la. nit fu sa xam-xam yam sa ndox fa la tàmbalee. lii da ngi doog a dégg te maa keneen ku ko yëkkati nag waa ADS ñoo ko moom. gis nga gis nga euh, euh, tey état bi ak opposition bi ñoo yem c'est la même gis nga tey Senghor a fi nekk ba léegi. yooyu ñu ngi seen ci état bi jamonoy Senghor ñoo ne si jamonoy Abdou Abdou Abdou Diouf ñoom nga ñoom même personne nga fiy gis booy fi gis seen i doom ñoo ñëw si Abdoulaye Wade ñoo ñëwaat ba si Macky sàll ki ñu fal ensemble nii mu nekk président bi nit ñi sax xamuñu. waaw non xam nga fal nit assemblée euh, du du caaga ni nit ñi xam ko ak ñàkk ko xam na na fekk mu nekk koo xam ne xam na jafe-jafe réew mi ba tax bépp loi boo xam ne day suuxal réew mi mu mun ko boleke ñun foofu lañ koy xaar li tax aaree waxaguñ ci mooy dañuy xaar ba xam loi góor jigéen yii ñuy wax ndax dinañ ko jàllale. est-ce que gars yi doxaluñ ko bàpp di ko nëbb nit ñi. depuis deux mille quatorze la euh, euh, la la la yooyu douze la waxoon yoo xam ne Égypte la jóge woon man depuis deux mille treize def naa ci ay conférence ba 2014 ba 2015 dëkk bu ne def naa fi ay conférence douze lois yoo xam ne bi fa agsi Égypte jamono ju fa siis di nekk mooy xeex mu metti ba looloo loolu mook ko fa jëlee ba mu ba mu démissionné ñu indi ko fii Afrique man ñi ko njëkk a jot dossier yooyu si laa bokk mais xam la moo tax euh, du ma si wax parce que jamono jooj bi may xeex wàllum góor jigéen ak ak wàllum euh, euh, planification familiale ak yeneen ak yeneen boobu ñii nag ñi ngay seet ñi marché ko taal ñi ngi doon ñi ngi xam lépp mais ñemoo ñoo génn wax boobu menn man maa nekkoon si terrain bi ak ñi ngi koy nuyu baax sunu sunu baay imaam Youssouf Ka nekk imaam bu nekk euh, Sika Mbaaw moom it ñu sonaloon ko loolu maa moom ñoo nekkoon ci combat bi doon ci xeex di ko wax mais xeex bi du loolu xam nga xeex mooy lan mënuma gëm ni nga ne yow nit diine nga ñi ngi mars chaque jour di di di taal ngir lan ñi ngi caricature yoon bi salaam ngir lan ñi ngi naxa sa sunu sunu sunu askan ak sunuy pétrole ak sunuy gaz beneen bi tamit ñi ngi indi ay góor jigéen ak yeneen beneen tamit ñi ngi yàq sunuy askan nga ne yaa ngi koy yaa ngi koy mars mais lu tax yéen ñii mars yi nitu diine mënoo leen boole ngeen toog ensemble kon kay li ngeen di mars du dëgg man maa ko wax parce que mars di xeex di toj amul njariñ li am njariñ mooy fañ koy nasee di ko noccee ngeen fexe toog fa bu lu ñëw ngeen mu bañ a boole foofu la askan bi xaar ci yéen ñun nag en tant que nitu diine en tant que nit ki nga xam ne dafa bokk Sénégal nekk Sénégalais yi jàng comme ni ngeen jàng bind comme ni ngeen bind jàngale comme ni ngeen jàngale muy diine muy fiq muy alxuraan muy lépp loo xam ne bépp domaine boo xam ne diine jàngale na ko rek tey bu ñu neexee nañ nañ ma dajaleeg ñoom ñëpp ñun dañoo jàng bind teg te lañ jàng ni ñaa ngi koy jariñoo kon bu ñu taxee ne dañoo bëgg réew mi pour teg ko képp ku kuy nitu diine. ñu ngi lay xaar ba xam yow li nga doon wax ndax dëgg la wala déet waa ADS ñu ngi lay xaar. macha allah yéen ko dégg waa ADS ñu ngi lay xaar temps bi daanaka jeex na dafa am loo xamante ni lépp lépp tamit xajul ci cin li xam naa nag dañuy doxaat ci beneen anam ci beneen gëstuwaat ci yeneen tolluwaay parce que ñun dafa moom émission daf ñu neex. parce que saa su ne saa bu ñu defee ak mooy émission ci beneen jàngat ci beneen domaine ci beneen gëstu ci beneen yoon boo xamante ni ku ko déglu jëlee ci njariñ kon ngaa cee ngaalaa moo waa ADS yal na yàlla guddal seen i fan yéen ñëpp yéen ñi nga xamante yéen a si yàlla defal leen jàmm dernier kàddu yi seen xarit waaw dernier yi mooy ñi ngi woo Sénégalais yëpp euh, ñi ngay dégg ñu naan ay dañuy dem ñëpp kenn demu si euh, ndax day day am ay yu bëri yoo xam nit ñi dañ leen créé sànni leen si àll bi ñu jàpp nañu dem fekk na dafa am ñu ñuy liggéeyal kon ADS ñu ngi identifié yëpp ADS nag mm, dafa nekk si dëkk bi sàccul duggul si benn benn benn benn gi sax askan mi moo ko tax a jóg kon ñi ngi waxaat mboolem nitu ADS ak surtout nitu diine ak kilifa diine yi képp koo xam ne yaakaar nga Serigne Touba taalibe Serigne Touba nga te bëgg nga li fi Serigne Touba bàyyi fii si réew mi. muy njàngale boo xam ne àdduna bi dañ koy xam na na nga jàppale ADS képp koo xam ne yaakaar nga Seydi Hadji Malick Sy Ibrahima Niass ak mboolem tarixa diine yi xam ne am nañ Sénégal fi yëpp te bëgg li fi nekk jóge fi na nga mi ngi lay wow pour ngeen ñëw ñu àndandoo liggéey ibil nañ leen suñuy bunt nag bépp responsable si bépp gox ñi ñi lay wax nga gën a takkaat sa laxasaay ADS amul lu muy ragal aadis amul lu muy tiit li ñu naan neex ngont xam fa ngay fanaane ko gën aadis dafa xam fa muy fanaani la ba tax nga dégg olof waaw parce que olof la te ñi ma jur ay olof lañ mm. euh, dëkk ci réew mi doon ay olof ba pare dëkk dëkk fii euh, euh, fii fi nga xam ne ñi ëpp xam-xam ci àdduna fi lañ nekk nit ñi nag bëgg a déjjate olof samp français ñu nit ñu bañ ko loolu moo tax ñu ñu nekk fii kon ñu ngi woo waa ADS Touba Eh, di eh, sunu yaay Fama Fall ak sunu baay Ferma Yacine eh, Fall ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ne Touba jiite mbooloom Touba di woo waa waa tamit Diadji Dieng ak sëñ Xaadim Diagne ñoom ñi fa nekk waa Wërësoo gi Mor di Ndeye Faat Seck ñi ngi koy woo tamit moom mi nga xam ne moo ne parcelle le secrétaire général Souleymane Fall nekk Dakar waa borom Dakaru sëñ Fallou Mbacke Jaxaay ak maam Thierno ak euh, bu nekk biir baanee bi yëpp tas tasal nañu fépp foo xam ne dem na ci adduna bi rek euh, euh, Mansour Saint-Louis ak Fatick Dionewar Khadija Ndiosmone ak waa Europe diaspora bi ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp même dëkk Afrique yi waaw di leen wax ni daal liggéey bi ADS nam ko tàmbalee ba léegi du teggi tànkam ba 2024 ci kàttan yàlla ñu jër réew mi defar ko ba képp kuy Sénégal nekk comme bitim réew nga ñibbi sa dëkk alal goo am nga ñëw investir ko si dëkk bi di gis say njaboot di liggéey di gis sa bopp lu foofu la aada di xaar ñëpp. alhamdulilah alhamdulilah tey loolu lañ leen indiloon tey ci li nga xamante ni mu di kàddu askan bi ah, ñun nag lii rek moo ñu war li tax ñu ne lii rek moo ñu war ku xool dakaar ak Touba xam ne sore na waaye ku xam ne kàddu dëgg fu mu am. ñun même boo nekkoon ba bitim réew dinañ déplacé wu dëgg suñu tànk bu ñu jël picc mi sax dinañ ko jël fekk la fa nga xamante ne fa nga nekk ngir bëgg réew mi jëm kanam kon ngàcce ngàllaama waa ADS ngàcce mi nga xamante ni yow lañ fa dalaloon ngàcce ngàllaama nag yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy seetaan yéen ñi nga xam ne nag yéenay taamu seen émission bi nga xam ne moo di kaddu askan bi lii rek lañ leen indiloon tey ci li nga xamante ni moo fi am tey te ñu ngi woon biir Touba ci li nga xamante ni mooy kër sëñ Xaadim mi nga xamante ni mooy leader bu mag a mag boobu nga xamante jamono jiñ toll ñëpp bàyyi xel mu nekk waa ADS kon ngàcce ngàllaama ba beneen yoon incha allahu rabbi dinañ leen talaat ci beneen yoon abonner sur Salam Vision.